ahousubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaa wal mursalin sayidina muhammadin il makkin wa ala alihi saabi ridwaan wa tamkin alhamdulilahi wasalla wada ala lasi bihi lanal ñoo ngi leen di jaare bu baax mbokk yi taalibe yi tey jii nag uh, ñu seet soon woon waa kër Serigne Saliou fondation Ndawi Serigne Saliou yi doon amal ay ndog yoo xam dañ koy def chaque année koor gu jot di ko yóbbul ndog yi Serigne Saliou di ko yóbbul sa xel koom daaray Ah, ren nag ñu amale woon ko fi doon ko toggee fii war ko yóbbu Xelkom ñuy laaj suñu jëwriñ ju tedd ji Serigne Cheikh Diop il faut seen koo laaj ba xam ndog yooyu lan mooy sabab bi dëgg-dëgg. ñu ngi nuyu waa Daara Serigne Saliou ji nga xamante ne bi ñoom la ñu duppee seen bopp fondation Ndawi Serigne Saliou te yàlla dogal ne ñu ngi ko formé woon presque heure bii daaw heure bii daaw lañ ko taxawaloon yàlla dogaloon tamit ñu seq ko. ak ay ndaw ak ay mag yoo xamante ne bi ñii ñi ngi Touba ñii nekkuñu Touba ñi ngi yeneen i dëkk yàlla dogal na ñu taxawal liggéey bi fas yéene see liggéey Serigne Touba waaye tamit fas yéene see liggéeyal Serigne Saliou Mbacké tudd ko fondation Ndawi Serigne Saliou Mbacké taxawu Xelkom boo xoolee logo bi moom lañ si def muy logo bii nii ginnaaw loolu tamit waaw ginnaaw loolu tamit ñi nga xamante ne bi yàlla dogal na bu ngeen gisee lii xew tey muy ndogu yi nga xamante ne bi waa daara ji dañ ko taxawu war koo yóbbu Xelkom day mel ne daaw lañ ko commencé woon daaw nga xam ne biñ taxawalee liggéey bi rek parce que wax naa léegi ne heure bii daaw lañ taxawaloon liggéey bi biñ taxawalee liggéey bi rek daanaka teguñu si ñaari weer koor gi ñëw ñu ne kat comme que dañuy doog a yëkkati liggéey bu toon liggéey bu Serigne Saliou Mbacke li ñuy njëkk a def mooy feeñal sunu yéene ci tur wi nga xamante ne bi moom lañ duppee sunu bopp muy ndawi Serigne Saliou ñu ne kat ndogu yaa ngi ñëw nanu jaayanteeg Serigne Saliou Mbacke fa séene see togg ay ndogu yóbbu ko muy deux mille vingt et un bii passé muy daaw yàlla dogal na tamit loolu bi ñu taxawalee fondation bi ak bi ñu ko defee nee naa lépp lépp mbokkum ñaari weer waaye lépp looy woote fa seen see liggéeyal Serigne Touba te loolu di dëgg rawatina Serigne Saliou Mbacke Serigne bi moo koy jàppal boppam ndax Serigne Saliou yàgg naa wax ne ñemewu wu bor dama amuk pay yàgg naa ko moom Serigne Saliou yàgg na koo wax kon mu mel ne liggéey boobu ñu ko taxawalee mbooloo mi nga xamante ne bii ñoom lañ seqal liggéey bi ñoom ñëpp dañoo jaayante di góor di jigéen di mag di ndaw ñoom ñëpp dañoo jaayante fa yéene dikk taabal seen addiya si liggéey Serigne Saliou Mbacké bi. Euh, ndog yi lii sabab bi mooy danoo xam ne sëriñ bi dana woon képp ku ma liggéeyal jariñu ba àggoon ci naan man Ahmadou de ba ma wóoree ne ku ma liggéeyal jariñu ma liggéeyal sama bopp ndax ma jariñu sababu liggéey bi dafa xëyoon bis mu togg laaxu boppam woo mag ñi ñëw xéwlu mu laaj leen ne leen ndax xam ngeen lu ma ci jublu mag ñi ne ko leen Mbàkke mu ne leen saa borom ma xamal ne man Ahmadou day képp ku ma liggéeyal jariñu ma ne naa liggéeyal sama bopp ndax ma jariñu te tamit sëriñ bi bi muy liggéeyloo maam Sirama Fall ci ganam googu ci weeru koor gi la ko tànnloo woon moo tax ñu tànn sababu ndog yi jëmale ko ci weeru koor gi ngir fas yéene koo jagleel dongee sëriñ Saaliw yi ndax sëriñ Saaliw daan wax sama daara ji day bu ma ku ma ci dimbale naala sant naa la gërëm waaye bu ñëpp tewee seen loxo itam la war danaa ko ca def tey nag ñu tànn bisum ndog bi yemale ko ci juróomi fani koor comme noonu nga ko waxee mu dëppoo ak juróomi fani sànnoo si muy bis boobu nga xamante ni ci la leen jaam ñi gën a jiwoon muy Serigne Touba di juróomi fan ca weeru koor ga waaye tombe itam ak bisub Serigne Souhaïbou Mbacké bii ndog li nag euh, fondation bi taxawoon nañ ci daaw ren mooy suñ ñaareelu édition di ñaan yàlla sun borom gën ñoo doole dimbali ñu yàgg koo taxawee ci barke borom Touba tey jii buñ suñ tuwaa defe ne tawféex ñu dajale suñuy suñuy dërëm ak suñu ñaar dërëm boo man a def lii ngir yóbbu ko xelkom di ci liggéeyal Serigne Touba eh, jaaree ko ci Serigne Saliou loolu ak sant borom Toola ak sant Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ni lépp moom na képp kuy dox ci borom Toola rek war naa delloo Cheikh Ibra njukkal tey dañuy wax ni murit moom bu taxawee ne murit la te gis nu ci moom lenn Cheikh Fall daanaka ak murit des na kon nag na nan nan takkuwaat te te gën a لهور دون سو تنحند سرسارا حمدي وسكري لمن كل به سارا لهور دون سو تنحند سرسارا سخات مسقاد لي من بني ديمان أنصارا سارب لهوردا دون صوت حند سرسارا حمدي وسكري لمن كل بي مها توجل مكاري الياء باخ الخباب سكري وهو الياء أنا رديت وهو أني ردي بلا مكاره ولا أمرادي haddani xayri jahaati saytaana man tayabal mamara wal awtaana farali xayri jahaati lahiinu yasoo xooli haynal muhiinu haddiyati minan ilaahi wa nabi kulliyati safar wa safatu nabi tawfiu xaadohun ilhamu haddabde yaa lahi maalhu biyaamu بدل لي اليوم برب خيب آسني ممن خلاه خيب لا يتوجه لنحوي متب عني مهت مكاره وتهب سعادتي بخير ما هو الكتبات وكوني عبدا خديما خد سبت سكر للميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير moom mii bu dikkee defaat ko tamit nag kon nañ yaakaar ne jaar na ca tànki maam ji jaar na ca tànki wajur wu góor yàlla na ko yàlla doolee dimbale nit ñi tamit li ngeen def nag lu ko gën a rëy amu fi ndax euh, seet koo xam ne ku mel ne Cheikh Salim mbaa nga ku mel ne Sëñ seex nga xam ne yor mbooloo mu toll nii euh, ñëpp mu yorañ ci yàlla yàlla rek tax ak yonent bi ak sëriñ bi euh, amu ci kenn koo xam ne dañ naan waajur moo fi warlu dara mbaa waajur kenn kenn ci yéen ñi ku ci doon waajur daanaka amu ci nga xam ne ay doomi jàmb rek a fi nekk mu yor leen ci yàlla rek tax di leen dundal di leen wodd di ànd ak ñoom di jaxasoo ñoom di leen liggéeyloo ci yàlla rek tax mm, ngeen nangoo jël seenu ñaq seenu jaayante ànd ko ci ak moom kon nag loolu moom yàlla na ko yàlla nangul boppam teful ko li tax ngeen jëf yàlla na ko yàlla teg loxo kenn ko nekk fam egg yàlla na ko yàlla weesule ak fu bëgg-bëgg ji àgg ak fu naal ji àgg yàlla na fa kàttan gi weesu barkib seexu naa seex seelew jërë ngeen jëf loolu daal doy naa yi wax dëgg yàlla na ngeen jëf jaa ngeen jëf barkalla kay alhamdulilah barkalla kay bëggee nañ ko lool le ngeen def de amul nit deful ko gën <laughs> liggéey ci yàlla rek tax nga xam ne seetoo ci mbokkum kenn seetoo ci doom yi kenn seetoo ci waaj diw waajur diw waajuram def ci yàlla rek tax loolu loolu liggéeyal yàlla mënu ko weesu. yàlla ñu yàlla fayal boppam nag. amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin